Euh, on a vu aussi également beaucoup de rappeurs sénégalais étaient mm-hmm. là donc euh, en train de bosser nek ci ci hip hop et tout. Mm-hmm. ñu jékki-jékki voyager gisatuñ leen len, gaay ñi naan sa dañ jël départ volontaire et tout. Mm-hmm. yow nan nga ko nan nga ko gisee nan nga ko lan nga ci nga ci sànni kam kat. Euh, waaw xam nga ay termes la rek yu gaay utiliser. live ay choix la. donc on a assez de bons MC ici. ñi dem suñu ñëwé c'est bien suñu ñëwul aussi c'est pas grave. il y aura d'autres gars qui vont représenter su live bi aussi yàlla day bind sa destin doo xam na lay tracé woo fan lay mujj fan ngay dem mu may la fa jabar ak doom affaire bi kepp la wala yeneen opportunité ubbeeku nga def war a def yenn choix yi très facile nga toog sa coin rek di wax di wax alors que mm-hmm. boo nekkoon si place gars yi doo xam ban décision ngay jël quoi man je respecte ku ci nekk choix yooyu ngay def noonu ñi dem toog fa peut-être ni dañu dem de loolu la yàlla bindoon seen live comme quoi kon mhm. faneen lañ koy àggalee wala danañ croiser yeneen personnes yu leen proposer d'autres euh, perspectives mhm. yu leen gënal ñëwaat gaal seen ci rab donc du coup dañuy jël décision yooyu y a rien de méchant mais c'est vrai que ni euh, ouais c'est des décisions à prendre quoi il faut vraiment nga passionné aussi il faut vraiment nga xam que ni yow temps rôle à jouer ci ce dëkk que mhm. sa hip hop ñi ko war a si nga bokk yow sentir nga ko déjà il faut nga sentir ko man lolou moom gëna jox courage bi ma def euh, album bële am collaboration bi ak Maaw je me suis dit que ñun war nañ bokk ci ñuy màggal game bi. ok dama ko sentir quoi dama sentir que ni am na yu fi manqué yoo xam ne peut-être ñun suñ mission la ñu ñëw yokk ko si. plus may dem plus may gën a gëm ko ne mission boobu la ma yàlla jox ma war ko mottali. plus moi gën a am conviction bi ak ak envie bi ak passion bi peut-être lolu aussi mo gën tax déconnecté wu ma dem carrément quoi li tax may ñëwaat peut-être lolu bokku na ci yi ma gën a. yi may gën mettre euh, en en contact avec euh, avec euh, avec mon pays quoi. ok Nick Daff